samay wax du say wax du waxi keneen ak keneen. ngir di leen bëggal ngir xool li nga xam ne moo ëpp seen bopp ñu toog fi débattre ko. li nga xam ne bëgg nañ mu leer ci kem lu ñu mën ñu leeral ko maanaam ñoom ñoo ñu fi bàyyi te duñ def lu dul dëgg neex yàlla di leen bëggal. ba pare di sàkku seeni bëgg-bëgg. ñu leen ko defal. mboju tey ma am sujet bu délicat sujet bu doy waar sujet boo xam ne wax dëgg neex yàlla bu ne dégg naa ko waaye bii mboo jëkk yi daf ma woo nëbboon na ma tur bi mais fexe naa ba mu wax ma tuur bi déglu ma bu wax attentivement mm. mbokk internet yi ngeen déglu ma te bàyyi ma xel te xam ne mm. li ñuy wax am na solo mm. bi ma woowee da doon jooy bëggul wax turam mais def naa la tout booster ko ba mu wax wax ma fi mu dëkk wax ma turam ak lépp euh, pass ma tàntam bi mu paree ne ma soxna jooma damay gis seen émission mu am solo lool ma yàgg di ko suivre mu ne ma même bu dul dara maanaam kenn képp koo gis ne maanaam képp ku ma xam ne mu ngi taxaw ci wàllum jigéen di sensibiliser ay jigéen jéem naa la contacter. Mm. mais bu ma la contacter rek maanaam ku ma wax loo doo ma waxal. Mm. yaakaar leen nag bëgg solution ma war ma ñëw fii. forcé nga ma nag naa la jox sama tur waaye naruma la woon sax jox sama tur. non fi tur du fi jàll. fi sax waaw xëy na pour mesure de sécurité effectivement xam naa pour mesure de sécurité liggéey bi lépp dafa am sutura. Euh, xëy na pour mesure de sécurité sauver hmm. boppam tamit moo taxoon bëgguma jox ko turam. Hmm. mais quand même boosté naa ko ba récupérer turam jox na jox na ma turam ak yëpp. Hmm. di jooy di jooy di jooy ma ne ko ma sama chérie mais foog nga ma wax ma foog nga wax ma li nga xam ne wax dëgg neex yàlla mooy li sa bopp li nga xam ne moo ngi lay jooyloo sa góomu xol. soo ko waxul génnee ko wax dëgg neex yàlla duñu xam lan la ba mën ko traité ndax loo gis dafa am euh, faj loo gis am na saafara loo gis am na li nga xam te ni mooy remède bi bi ciy dem mu ne ma xaw ma nu ma la ko waxee ruus naa koo wax mu ne ma sama yaay gédd na àddina mu ne soo paree léegi naa la pass sama sœur ma ne ko waaw léegi mu ne ma soxna jooma ma nekk ak sama maam ci kër gi sama papa tukki sama yaay génn na àddina sa kër maam ngay ne fooy nekk feneen man sama yaay sama papa ñoo fa nekkoon ak keneen koo xam te ne yarluwaan la woon sama cousine ci biir kër gi ak sama benn tonton ñun ñoo ñoo nekkoon ci kër gi yaa muy dégg sama yaay nag moom du mag sama papa du mag maanaam ndax boo gisee âge yi ma la jox di nga xam ne te effectivement ku am 19 ans sa yaay ak ñooñu nga doon taaw raisonnable na ah moom papa mooy dund moo tukki yaayam moo gaañu léegi magam ji maanaam doomu baayam la boo xamante ne papam da ko amoon à part mm. ne doomu baay mag la. Mhm. doomu ndey mag la mag mag la. Mhm. du ko bokkal ndey ak baay rek mooy mag. Mhm. léegi ñooñu ñoo dund nekkoon ci kër gi di dund yaayam génn na àddina. est-ce que yaa ngi may dégg. léegi bi yaayam gaañoo mbooja mu nekk ak papam nekk ak nijaayam ak yarluwaan bi nga xamante ne du ma ne yarluwaan ndax doom la ci biir kër gi est-ce que yaa may dégg. doomu muy doomu baayam léegi ñu nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ba papa ji tukki. mu continué ak maamam nijaayam bu xëyee liggéeyi poor yaa ngi may dégg cousine mu ngi ci jàng bi ba tey moom jàngatul ndax nee na xel bi dafa nëx mu ngi ca kër ga daanaka moom maamam ñooy yow dundu ca kër ga. tout le temps bu toggee añ ba def li mu war a def yëpp day seetlu ne li muy nelaw dafay bari saa yu nelawee yow pour mu jóg dox problème la su gisee taat yi xam ne c'est pas ça premier jour bu mu dikkee que lu mel ni indisposé mu ne ma jooma li ma la leex nag mën nga ne daf maa neex wala li may dund yaa ngi may dégg maa ko tey di ko dund déedéet ne ma li may dund nii su ma la ko xëy ba pare mën nga xalaat lu ne waaye boo dégloo ba ci cappaandaw la di nga xam ne caaxaanuma te caaxaanu luuma xale laa mais am naa jom ndax xam naa fi ma bokk xam naa may kante am naa lu ma bëggal sama bopp léegi bi ma expliqué ne ma nu mu tuddati saa yu toggee añ ba def li muy def bu tëddee yaa ngi may dégg saa yu yeewoo dina xam ne moom ci jëmm boppam am na lu nekkoon ci moom wala lu jóge ci moom tànkam yi taat yi day metti est-ce que dégg nekkate moo jëm maam ji nga xam ne moo jur baayam moo koy tëddee sa koo jur baayam maam ja di nga ne ana jabar ja ndax nee naa ko maam ja ana jabar ja mu ne ma jabar ji daa décédé du coup maam ja amul jabar papam moom tukki na yaayam ak papam maanaam sëyatuñu ndax ki gaañu mënatul sëy yaayam gaañu na papam tukki na moom maama ma fa des ak nijaayam nijaayam bu xëyee liggéeyi port magam ja ca kër ga kooku bu xëyee jàngi na est-ce bi yaa ngi koy comprendre bu baax boo ja yaa ngi may xool de. yow rek laay déglu jaamu. léegi xale bi ne ma sama maam yàq na sama àddina noonu la nekkeek man ba ma nekkoon maam di nga yàq sama àddina waaye dinaa la siwal ndax lii mënatuma ko téye dama lay boole maam dina ko bés boo ma boole ma la. maam ji ne ko boo ma boolee dama lay taal ci kër gi mu mel ni kër gee tàkk ba jeex kenn du xam ni mu demee maam ji du mag noonu du pas comme yu màgget ndax papa mag yaayam du yenn mag ndax ay 18 ans 19 ans la am est que yaa may comprendre te dañoo teel a sëy papa mag yaayam mu doon seen taaw maam ji ne ko boo ma boolee dama lay taal ci kër gi kenn du xam yow ni affaire bi demee nee na jooma ñu nekk noonu nekk noonu ba instant yi dama ëmb xaw ma fu ma jëm sama àddina yàqu na du jooy jooy di jooy di jooy il a fallu mu passe ma magam ma mën a xam ne carrément kii li mu wax dëgg la te lu raisonnable la wax. Ah, moo de kër yaa léegi bi mu laajee bi ñu ko laajee kan moo la ëmb lan la wax. magam ji bi ma. bi ñu ko laajee kan moo la lan la wax. kan xale bi ëmb. Ah. ba ma laajee sama maam la ma bi ko mbokk yi kan moo la ëmbal moom kan la annoncé. léegi nag ba ka mo merci ba ka mbokk yi laajee ne ko kën moo la ëmbal dafa wax benn xale bu góor. nenguñ ñaan la dëkk. ñu ne ko nguñ ñaan ci fan di ko enquête ndax yow bu nekkee da ngaa jël benn quartier rek ciblé na foofu amoo ci certitude xamoo koñ ba nu mu tudd xamoo ki la ëmbal maanaam da ngay rek pour sos mënul joxe benn argument bu dëgër nguñ ñaan la leen wax parce que boobu ruus na ne magam sama maam moo ma ëmbal ruus na ne nijaayam sama maam moo ma ëmbal xaritam yi ruus na leen a wax ne sama maam. man moo ma ëmbal léegi moom la paasee mag ji. waaw. mag ji moom dafa xam ne xam na ne moom maam jee ko ëmbal. mag ji moom moo topp rakk ji. di insister nguñ daan ci fan wax ko lu leer xale bu gor bi nu mu tudd bu tayee mu ne ko Moussa bu subaa mu ne ko duuru di ko wax yoo xamante ne mag ko jëkk gënu mus na dafa jàng elle est intelligente par contre kay jàngul sujet bu wax tey sujet bi changé suñ ne ko joxeel numéro waa ji amul numéro bu mu joxe keneen ku mu joxe numéro bu feeñ bi bu tandoo su numéro rek bu maanaam bu joxe beneen numéro bu dul numéro ku ko ëmbal mu feeñ amul argument bu dëgër mag ji di ko booster di ko booster di ko booster ne ko nag duñ wax boo ma waxul yow maag yow yaa nga may dégg fi la ñuy dogoo ma bàyyi la àddina ak alaaxira sa yaay nekkatu fi sa papa moom xam naa ne banana ndax ëmb bii mu dégg rek tas nga yaakaaram man nga fi dese may sa mag tey nga maa wax wax ma wax ma wax topp topp ko topp ko ba mu ne sa maam ba mu ne sa maam mag ji ba koy doog xam na ne ko mu ne ko sa maam maam bi ñu bokk moo ma def lii mag ji il a fallu man mu passe ma ko tey téléphone mu mën a am certitude ne kii li may wax c'est la pure des vérités c'est la réalité waaw maam ji moom kenn waxatu ko moom. Mbodj loolu doy na waar. non man nag su may wax moom fi mu nii. il faut ñu ne sa ko mën a tim ma la wax maam ji moom borom kenn waxatu dañ koo fi tegee nii mais sët bi de. sët bi dégg dëgg. Mbodj mën nañ ko nax de eh, Mbodj. man bëgg ngaa dégg dëgg. la ko jox xel ba mu war a woo keneen ku nekk ngunjaan di ko ca taqal te xamul ko ku mu doon ah. patt jooju moo waral maam ci antuma bii xale bi dawut li nga wax logique la xale bi dawul ndax stratégie bi mu teg ba eh, créé ku ne xale ah. nga ma lan laa d'accord lan laa nangul d'accord viol bi yu ci dari yu ci bari dafa ànd ak yëg-yëg viol forcément am na joomaa viol danaan métti nit ba mu daw xaru wala mu tëb dugg ci teen eh tànte na trois fois may ma ma ñëw de may ma ma ñëw. mag ji confirmé may ma ma ñëw wuyu ma eh magam jooju déglu ma eh magam jooju li mu lay woo di wax ak yow na woo ñam war a woo ca fam ba wax ak ñoom yaa ngi may loolu mooy régler situation bi. mais est-ce que defu ko ah, parce que man tamit maanaam. eh bu defee lu wat rek pourquoi pas ñu ma ne est-ce que mag ko après parce que man ra euh, yàkkamti woon naa jël man information bi nga xam ne maanaam wax nañ ma ko. man d'accord ma ma bi ñu débattre. man d'accord ma xale bi mën naa nekk ak maam ji ci kër ji. maam ji di ko noggatu ndànk muy neex ci moom mu a pot ak moom ba mu fekk ko ci. mu nangu mu doon plaisir eh, bon am rek mu nangu moo jot sa mu leer na leen kii sa maam nga doon sa maam yow fii nag fi lu jaaxal kenn joomaa nañu waxante dëgg. maam dafa raar moom lool moom lool moom dafa raar mais xale yi ci boppam. gis nga eh, man gis naa fi nijaay. dama ne la gis naa fi ton tonton ma nijaay. déglu ma mais maam. xale yi ñoo war di wax wooy wooy sama ndey nañuy yuuxu di weer nit ki. muy mag bu góor muy rakk bu góor muy baay muy magu baay muy rakku baay muy maam tout yépp yam ki la sunu borom daganalul ne àndal ak moom sa mag bu góor ak sa nijaay sa rakk bu góor ak yépp a ci yam ki te neexul a yuuxul pourquoi pas loolu moom loolu moom d'accord naa loolu moom Euh, ñoo ñoo bokk point de vue yow da ngay bat ak moom di neex di neex chaque jour nga dégg xale bu jigéen nag boo xëy na du yàgg fi yàgg bi mooy tey ku la génneel par exemple paaka wala mu tegal la menace ne la ma la ci fekk exemple ma li mu fois dañ lay yóbbu si circonstance boo xam ne déglu ma danga may déglu tuuti ma am lu ma la dagal suñuy cas suñuy cas moo gënoon a tar fuuf te boo dagalee paaka du ñu tëree yuuxu sunuy temps ñun boobu la xal boobu la nit gënoon a ragal de ñu ñoo gënoon a niil ñun ñoo gënoon a ñàkk xam tous te boo ñu fëggee bëgg ñoo yàq suñu àdduna dañ naan wooy ba ñépp ñëw waxutuma la génération bi nga xamante ni xale yépp a xam paaka ak rey ñépp a xam xuuxal ñépp a xam ni kii di la xuuxal di la tëddee du la def dara jaral na ma mu wax pare xool eh génn kër gi gàddaay mais patt ji xale yi di patt ci kër gi ba ëmb jóg soo ko wax c'est pas normal. Mbodja maanaam dañ fee pour de débat ci sujet bi mu doon loo xam ne war nga war nañ ko ci wan bunt waaye man épargne ma ko ndax ba mu waxee pare nee naa ko wax dëgg neex yàlla diw mu ne ma waaw. ma ne ko diw ba mu ne waaw ma ne ko dégg nga ma woon naa la fois mu ne ma waaw ma ne ko nag métti na ndax mënoo dund situation surtout état bi nga nekk ku ëmb am na yoo xam ne waruñu la ko wax waaye bañoo bañoo mu ne ma bul wax loolu soxna si boo ne ma bañoo dina ma jaaxal. ndax maanaam bañ sama bakken des si li nekk sama biir bakkenam des si moo waral xëy na man na du circonstance ba mu toll fii fi ne nii nag damaa maar lu may am naa ko am lu may ñàkk naa ko ñàkk la mu war na am la wees na joomaayee danga jox nopp nga déglu moom bu baax ah, maa lee lay déglu moom xam lu ma la yëgal wax bu wax bu dofee nopp yu ko déglu war a wér maam ji mbonam kenn waxatu ko jàll na bu baax moom dem na comme dem na bay xemmem sa tam mais man sama maam man boo demee ba xemmem ba ba néeg maa tiim comme amoo ñàkk ngoru tiim ma man ma am la mu weer la fa mu jógee jël ay tam di yuuxu foofu la yuuxu weesoo ba mu waree yuuxu moo yàgg ndax maamkat bu tee xale bu ndaw bu xamagul góor xam fa mu koy jaar di raay di nampi ween di macc nga ne pat ak moom xale yi ci bari neex neex bi la ñuy topp dëgg kenn du ko yërëm nañ waxante dëgg benn affaire foofu daa am lu ma la fa bëgg a laaj Mbodj loo topp topp neex-neex ba sigg lim ci ay bëtu ki jur sa baay Mbodj nga foog ne bon yem yegg na foofu yow sa papa. kon yow wéeroon bu ne moo lay jox bànneex bi nga accepté. lu soxla bànneex boobu waaye léegi ki jur sa papa baay bi la jur bu la néegee tiim nag ki jur sa baay nga wax waaye léegi baay bi la jur bu la néegee tiim nag. comme am nga ñàkku kersa am xemme ma man ba war maa mën a tiim yow baay bi ma jur waxatuma laa ko jur sama baay man maa ko noppi laaluwul xale ñoo war a ba noppi patt ji la ñuy ba gis nga góor soo ko bañee xam bul ko ñam soo bañee xam neexaay ba bul ko ñam boo ma ñamee benn yoon dootoo ma ñamaat de jigéen ku ko ñam ñamati ko ñamati du ko neex dama bàyyi xale maga ci yam fii ku fi yuuxu ñu wàllu la benn yoon nga may ñam man yow yow yow yow imaginel yow joomaa déglu ma rek palaatoo bi ñu toog lu ñuy wax dafa war a leer ci nopp nit yi yow benn nga tëdd nelaw Mhm. góor tiim la ba yegg ci yow da ngay xale bu ndaw nee na ba mu yewoo xam na ko déglu ma eh ci yegg baaru woon yoon buy teg buy puus ajja waaye sax man day lay lu mu doon mais problème bi mooy man maanaam li ma ko waroon a laajte laajte waaw dama bàyyi mënul nekk ci yenn situation yu mbooja man man man man man maanaam sama philosophie ne du nekk si yenn situation yu difficile yi nekk ci état bi nekk doon xale surtout bopp bi tëju am ay problème ñëw bëgg leer lu nga ko yokki problème duma fa nekk naan ko li nga wax xam naa fi nga bëgg a jëm maanaam bu nekkoon ku vierge la waroon na ko gën a teel a yëg métti loolu la ko gënoon wala dama laa a dagg. dama ma rek ma continuer. non boo mënee dagg rek développé bi du neex yow da ngaa teg sa thème da may bàyyi ma wax développé ci li nga xamante développé li nga xam ni moom la thème bi tojal na ko faram fàccel la ko nii nga comprendre. mais tamit damay bañ nga jël lépp loo xam ne tort bi la. non rek pas tort mais xale bi am na tort.